jërë ngeen jëf soppe info sport ñoo leen nuyu baa di leen ziar dañu dooree xibaaru tàggat yaram fële ci Liverpool ñoom demoon daan nañu proposé équipe bi di Napoli somb toll ci jox seen défenseur bii di Kalidou Koulibaly mu ñëw fële ci Liverpool waaye tamit waa waa Napoli daan nañu jàpp somb bu 64 millions dafa nekk loo xam ne dafa tuuti jamono ji mooy 100 millions d'euros daal ngir bàyyi kii di Kalidou Koulibaly mu dem xam naa ne moom du yoo Kalidou Koulibaly Van Dijk du yomb jamono ji nag Borussia Dortmund ñoom ngir ñu bàyyi kii di Jadon Sancho mu dem faaw daal somb toll ci cent trente millions d'euros dafa daal di teg ci table bi. équipe bi di Juventus ñun daan nañuy tegal équipe bi di Wolverhampton cinquante millions d'euros ngir ñu mën leen jox kii di Raúl Jiménez nekk fële ci Wolverhampton waaye tamit nag équipe bu club bu anglais boobu moom li muy demandé mooy cent millions d'euros ngir bàyyi attaquant boobu mu dem waaye Manchester United moom mu ngi ci boobu la dossier moom. daal di xam ne ni kii di Thiago Alcantara dana jóge fële ca Bayern ci été bi di ñëw Liverpool ak Manchester City bu Pep Guardiola daan nañuy intéressé wu ci doomu Espagne boobu Sergio Kun Aguero moom daan nañ am ab gaañu gaañu bu métti ci senu bi ba tax na ba mutu sax moom li de saison bi moom ba mutu dana ko rate waaye tamit nag Ligue des champions bi nga xam ne mooy ñëw dana nekk loo xam ne jëfale ci ndax gaañu gaañu bi am daan nañ métti lool daan nañ ko opéré sax moom Sergio Kun Aguero da ngeen jëf mbokk yi ko yaakaar naa lu nu fi doon ay xibaar ñu doon def ngoon